lu mu doon ak leer yàlla du bind dara lépp lu bind lu ko bind ci réew Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nga guddi gi nag mu ne jële ko génne ci aalamu maasoor mu ne guddi gi mooy gën a màgg ci guddi yi mu ne guddi gii nag moo tax ñu defee ngir laajteel lool ci guddi gi la mu ne Moustapha la boo xam ne li li daal di a jàkkaarloo li mu njëkk a xamal mooy mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moom la mu ne loolu gën a jot naa am gannaaw bi nga xamee ne am na am am na njëriñ lu gën a amal amal mu ne ci biir gannaaw bi nga xam ne ruum bi ci la sukkandiku pour ne boole garaaw yi moom la njëkk a bind mooy loolu moo jëlee daal bi nga loolu la fekk naa man ci jaabu bu teew ba nga xamee ne dara amul yàlla kese min haysu maa huwa wala yàlla kese mu xam man yàlla xam man yaa defu dara mu xam bi amat mu xam amee ndax dara ñoo xam Monsieur le Président Félon, nan Félon jiyaatu bu góor mooy ñëw Sëriñ sallallahu alayhi wa sallam mooy ram mooy ñëwaat mooy li njëkk a njëkk bi bi. Jërë bi ñaanal lépp luñ bind. Ñu ne góorgóor bu bu ginee ci la génn ci la aadama naa moom la ñuy màggal ñu ngi màgg na loolu nag tey ci axtaaru àdd ñu ngi koy màggal mu ne yàlla nag buur na yàlla buur na du mat am kàttan loolu bindi bu bindee mu ne du bindee wu ko kenn te ren pour a dox ci suuf ci bindee suba la bu mu jëlee kenn ku ko fekk ci nam mel am na ay mbokk ci boolem yonente ay mbokk yonente waaye waaye ci la mu yonente gi ci la bokk waaye diggante moom ak yàlla kenn jaaru ci diggante ba kenn yëngu sa woon te kenn dafa yëngu kon mu ne xeetu ndox la ñuy màggale mu ne seen seen waa ji biir seen alaajo moom la woon ñu koy tàgg tàgg yu mag yu mag a mag a mag xeetu tàgg yu ne tàgg na ko moom bu ñëwee wéy bu fekkee raaxil la ñuy wéy dugg boo xam ne naan la ci dugg ba dara dana ko ca tàgg da koy feeñal ci njaamu bu góor su fekkee ne ko laalu ci jëmm bi dana wax ci moom lu nga xam ne moo tax mu ne ko tàgg te du ko feeñal lu mu ci sàmmalu واحد وحتى نفسك يا رحمن وحتى نفسك يا رحمن يا سمتي قبل القلائق وحتى نفسك يا رحمن يا سلمي yëngal boo xam ne kenn fekkee ko mooy xalaatam diggante moom ak moom la bi mu amalee taabalul leen moom kenn képp koo fi ne wéetal ko wéetal boo xam ne wéet boobu kenn du ko ca fekk te kenn du ko xam moo mu ne ko xayaaban ci ko ci mu nekk ab jaam bu boobu Muhammad amul mu nekk ab jaamam nekk ab jaamam mu ne ko nekkal jaam mu ne ko nekk naa jaam mu ne ko bëgg naa bu njëkk ba ci la tudd Abdoulaye bu ñaareel ba ci la tudd Habiboulaye mu ne ñaari tudd yooyu loolu moom bindee loolu moom la ko bindee ci hijaabu bu góor ba bindee loolu nga yàlla ne ko yow laa njëkk a bind sama jaam nga mu ne ko man nangu naa sa jaam naa bu ne dëgg mu ne ko anta habibi nga boole abdullaahi ga ak habibullaahi ga moo tax moo gën a màgg ci tur yi féete ci baatin ñu ngi seet ci baatin Habibullahi ak Abdullahi ñoo ci gën a màgg ñu ne ñoom nag dañ dikki fekk bi seen wéyum seen seen alaaj Omar Ndaw na ko màggal war ko dana màggal boobu ñoom amul doom boobu yàgg na doon ñu seet ci daara bi nga commencé di def màggal di def gàmm mu ne fu xam naa li nga xam ne la ñib see ca daara ja ndax nga xam ne am na looy am mu dooree gàmmu mooy 1929 mu ne am moom ba tey ñu ngi gàmm mosu doy ba noonu ba yàlla dogale ko fi ñoom ñu des fi di ay doomam yokk ci kawam. di ñaan yàlla bu ëllëgee sëñ yi yoon yi ñu topp ci yooyu mu ne kon dañ war a topp tooy xasida yi ñi nga xam ne moom moo ko ci yoon tamit mooy boole wër ci kër yëpp gis ni muy takkee ni muy takkee yoon tamit ak yàlla ak ni muy ci moom mu ne doy nga bëgg ba suuf la ñu ci keneen mu ne lim bind rek doy na nga suuf waxam rek doy na ci suuf la ko ci wér ak yàlla gi ak wér ak yonent bi mu ne bu fekkee wér ak yàlla la nag ca xam ca kaay suuf la ko xaj na ni ko sëñ bi seet setee xam gi loolu yomb ci wàll yonent bi su fekkee yi ñoo xam yonent bi la moom xam na ca loo xam ne su ko tuddee da nga xam kii su ko lépp lu ci moom moo gën a dëgër mu ne am na foofu su ko lépp de biñ su ko lépp am nañ ko mu ne nañ jàng xasidaa bi ñu xam xasidaa bi bu ëllëgee suñ gisee doom nga xam ne doomam dem na ñu xam ne doom jeex na sëtëf ne sët ba war a mel ni doom mu ne sët dafa mu ne soo suñu meloon ni baay man la ñu wutu baay ci wutu bu mat sëkk ñu nit sën yi lañ jéem man a wutu suñu maam bu yàlla dogalee lépp ñun kese ñu des buñ leen lalee buñ lalee gàmmu ñu xam lu ñuy wax xam fu wax ñu jëm ci yeneen ci wàll ak yàlla ak wàll yonent bi mu ne gàmmu kenn mënu ko mu ne sant nañ yàlla gërëm nañ suñ xol sedd na mu ne lii mbokk mi ñu dëkk sëñ bi sant Alaaji Mor Ndaw tey lañ a bëgg tey lañ a bëgg tey lañ gën a yaakaar mu ne waaye liñ bëgg wóolu ko yaakaar a bëgg moom lañ bëgg ak rasulullahi nañ ko ba lépp lu la xam di ko aw ci sunaat si tey it tariqa bii lu koy mu ne mel na leen di dégg mu ne ñu baax te it xel wuttuwaante jullit ak xam-xam ndax xam suñuy xaw faa la bëgg te liñ bëgg doo ko def bëgg nga des na dañ jéem a bëgg Moustapha jéem yi jëfandikoo suñu am bu ne allahu akbar ci jàkka ja nga jàpp ba set dox dem ca jàkka ja teel jiw soo mën na dox dem ca jàkka ja nga jéem a soo ko mënul nga fexe fa nga mën a ne te boobu mën a ne keneen ngeen bokk julli mu julli booloo mu ne buñ ko baax mu ne loolu la ñu digal de lu loolu wéyee ñu ko ànd xel nañ ko ko ànde ci gannaaw ak ci kanam loo xam ne soo ko waxee nit ki ci kanamam. loo xam ne soo ko waxee ci kanamam mu mer wala ñu loo ko wax ci kanamam loo ko wax ci gannaawam mu ne loolu mooy jëw nañ ko jëw lépp loo xam ne mu salaay la ko dañ xam lan la nañ ko bàyyi di ko digle dañ xam lan la nañ jaaw mu ne gaaw mu lañ wax nag mu ne booy wax finqa ci gàmmu finqa bi muy wax dafa war a dëppoo ak gàmmu wala si balaa finqa na am leen bëgg si yoonu jëm mu ne sant na ñëpp gërëm na ñëpp ku ci wax koo xam ne la jëm mu ne moom gàmmul kii gàmmoo dina gàmmoo mu ne moom dafay nuyoo da sargal da gërëm da sant lépp digg yi ngeen digg moom lay gërëm da ci sant da kii digg fees da digg ngir yàlla ak rasulullah ak gën màggal Mustafa ci jëm bi ngir jëm waaye nag daa am ne mu ne bii suroom daa am ne bu toog fii mu toog fan la ñëw a jàngee laa nekk mu ne bu jàngee bu fii waaye mu ne mënu ko de su ko mënee itamit am na bu mu ko bu mu ko defal bu mu ko mën a defal kon nag mu ngi noonu ñu toog ñu ngi nit ñi. am na njaboot bi kenn ku ne yaa ngi waaj sol ngeen màggalu Safar li ngay wàññi lépp nit ñi jullit yi ñoo la ko jox kenn ku ne li nga sol jullit ñoo la ko jox ñoo la ko jox ngeen baax na jullit ñi nañ bàyyi ñëpp jullit ñi liñ ci nag nit ñee ko joxe lépp lu fi am nit ñee ko joxe ngir bëgg yàlla bëgg Rasulullaay bëgg aajo war law yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla yàlla yokk leen yokk seen fan yokk seen wërsëg ñi ciy liggéey dafay liggéey yàlla na ci yàlla defal barke mu ci liggéeyu yàlla am na liggéey yàlla la yàlla taxawal liggéey wasalaamu aleykum wa rahmatulah wa barakaatu mu ne yaa sëñ Amin mu ne bisimilah mu ne mbir maa ngi noonu boo paree mu ne dafa bëgg téere bi ñu jaar ko ba mu jeex waaye mu ne la yéex nañ commencé jàng yi mu ne daaw bi ko defee biñ fi nekkee ci la jàng ba 10 heures mu ne tiiseer sax moo gën a baax ci gàmmu ndax gàmmu bu fekkee da nga bëgg maanaam Moustapha yaa ngi war a seen nga war a commencé ci njël ba tiiseer ci yow lool seen ngeen ci njël ci wala ci lu jublu ci yenn wax yi seen ngeen lu jublu am na ñu ne ñetti leer maanaam lu jublu waaye loolu xamul ca dara. waaye nañ ko natt foofu fi mu ne nag ñu ngi bëgg a yegg ci quatrième cinq heures suñuy jàng mu ne bu fekkee ne na téere bi jeex mu ne bu bëgg mu jeex nag dañ koy jamoo dañ koy jamoo te buñ ci boole leneen dañ mooy